ñu ñëwoon fii nax dañoo yeewu dañoo yeewu dégg affaire au viol ñu ne ki nga xam ni yéen a daan liggéeyandoo dañ daan wax ni sax kooku moo nekk ci ginnaaw selbe moo koy moo koy wax muy wax ñu dégg ni ci journaux yi ak ci presse bi ni kooku dañ ko jàpp pour affaire da doon sàkku benn xale bu am 12 ans waaw ba tey ñu gën a sant yàlla gën si yonent bi sant Sëñ Tuubaa euh, di sant yàlla ba ngeen ñëwee yéen waa Pikine déplacé ñëw ba suñ ba ci suñu daara ji nga xam ne moom la yàlla yonent bi suñ Tuubaa jox pour ñun ñu leeralal leen benn man kenn waxaluma man Selbé Ndom kenn waxaluma muy benn kenn nekkul sama ginnaaw ku dul yàlla yonent bi sëriñ Tuubaa bu keneen nekkoon sama ginnaaw tey duma ci am sama këru bopp dem ci màkk ziyaar ak ci bi sallallahu alayhi wa ñaari yoon li ko dund ba suñu yoon yàlla te loolu nañ ko nañ ko close ndax xam nañ ne kenn waxaluma xëy na dañuy wax li leen neex rek. li nga xam ne mooy wàllu viole boobu ñuy wax ñu gis ma polis ak kañ ko jiin muy maam Abdou Touré maam Abdou ture sama goro la Sénégal yëpp xam nañ ne Selbé du tooñ Selbé ànd ak koy tooñ maam Abdou Touré moom. mooy borom këru sagar bey sagar bey maretu mi ko jur ak man man seen maretu ndoom ak selbe ndoom ñoo bokk ndey ak baay yaa ngi may dégg bu baax a baax maam Abdou violé wut rakam Moodu Ture boo xam ne seen ñaari baay ñoo bokk ndey ak baay moom lañu jiiñ viol te amaguñ ci dara lu leen leer ndax selbe du ànd ak kuy tooñ man damaa am benn doom bu jigéen Yaasin benn doom Yacine xam nga ko. Ah. kon du kon du Modou Touré ñu naan mi ñu ne moom moo mooy. mooy assistant du maam Abdou Touré maam Abdou Touré. Modou nekk sa assistant. maam Abdou Touré maa ko indi dakaar mm-hmm. parcelle la nekkoon di liggéey mbirum sëriñ sama rakk bi ma bokkal ndey baay mareetu xamal ma ne maam Abdou day def affaire sëriñ ma ne ginnaaw yàlla def na maa ngi liggéey bala maa woo jàmbur di ko jox ay client naa ko jox mam Abdou mi nga xamne mo yoré sama doom indi ma Abdou sama kër jox ko fa nek lenen lama ma def leen teg moom ci lu bax jotta wax nañ ko baye yalla yonent bi ya ngoy deg ci viol nga ma laaj nañ dem ci viol mm-hmm. ma Abdou bi mu ñëwé ak ànd ak jiri ndom and mm-hmm. ak Abdou Akim Touré and ak euh, euh, Fadjaan ñaarelam ci lañ tok mu ne ma ah dafa am lu xew de mm-hmm. modou moom lañ jiin leen dafa violé xale bu am fukki at ak ñaar mm-hmm. ma ne ko anamu mu seen kër ma ne ko yóbbu ma fa boobu 10 heures passé na ñu dugal ma ci seen oto yóbbu ma ca kër ga ma dem fekk fa bàjjanam ak yaayu xale bi ñun nuyu ñun nuyoo waxtaan ma ne ko indil leen ma xale bi mm-hmm. ñu indil ma xale bi bi mu indilee xale bi ma nuyoo xale bi xale bi dafa handicapé benn loxo bi dafa def nii ñu toog ci suuf ma nuyu xale bi ne ko lan la la Moodu def mu ne ma ndax ma wax ne nañ dem seen kër ma dem seen kër mu ne ma naa summi tubay ji ma bañ mu jël loxoom teg ko fii ma ne ko bi nga paree bi mu paree mu ne ma ma dem ñibbi ma ne ko doy na internet laa nekk àdduna bi yëpp moo may seetaan damaa am benn doom bu jigéen ci àddina te bëgguma ku ko def lu bon dama am samay rakk yu jigéen dañoo am ay doom yu jigéen samay mag yu góor dañoo am ay doom yu jigéen àdduna bi am ay doomi jàmbur yoo xam ne seen ndey dundul seeni baay dundul ñu doon ay jigéen bëgguma kenn ko toroxal nit ci laa xale bi doy na xale bi jóg génn ma ne bàjjan bi xale bu jigéen bu am fukki at ak ñaar

laaj naa ko xale bi xale bee ma ko wax ci gémmiñam ndax ku dee li yëpp affaire àddina la incha allahu ëllëg yoomal qiyaam kenn ku ci nekk dinga laloo sa loxo ndeyjoor bi ci kàttanu <coughs> xale bi laajoo ko viol bi kañ moon léegi nee na ci safar ga la mu am juróom benn weer yow nga ne jigéen nga yaasin yaa ngeeg sa doom mu handicapé chaque jour que jëfee yaay sang sa doom góor yëg ci moom ci guddi gi xanaa boo xëyee sa doom wallahi bu góor yéggee ci kaw xale bu am fukki at ak ñaar xale bi du dox ndaka mag yi am fanweeri at ak nangam wala ñaar fukki at la la ñooy am borom kër ñu ñu leen di ñu leen di jébbale ñuy xam asima xale bu am fukki at ak ñaar wa ñu léral ni que Modou Modou Touré mi ñu wax nekul won sa assistant frère mo nekkon sa assistant mais ñom ñep même famille bi la. Mm. xamanté ngeen. waaw Modou Touré mom nga xamné ne mom lañu la dafa violé mm-hmm. bokkut ak mam Abdou Touré mm-hmm. mam Abdou Touré sama gorola. la. d'accord man mi mako yoron ci sama biir kër client bu ma am. ñako mm-hmm. demal ci mam Abdou. mais Modou Touré amna amna jabar amna ay dom moo du Touré xale la. Hmm. am na jabar waaye jabaram sëy sëygut. Hmm. mais ñoom naka lañ dëkkee ak Modou Touré. ñoom dëkkuñu ak Modou Touré. Hmm. ñoom ñaareelu maam Abdou. Fatou Diagne. kër kër ñoom Fatou Diagne ak kër ñi nga xam ne nee nañu dañoo violé seen doom. waaw ñoo toqaloo. ñu am ay at yu bari ëppal nañu fanweeri at yu dëkk xaw ma ñaar fukki at ak nàngam. Fatou Diagne bañ ko yóbbu kër baayam ñoom fa la leen fekk. xale yi fan leen dëkk xale bi fan leen dëkk. xale bi fa mu dëkk ak Modou fa mu dëkk du benn. fu ñu dëkk. yëmbal route de mm-hmm. mais mais soriante nañ. sorewuñ noonu. route de laa njëkkoon a dëkk ba yàlla fekk ma fa ma ñëw jënd sama kër fii. Mm-hmm. yaa ngi dégg. bu nekkee ni que nee nga loolu ñu wax xale bu am fukki at ak ñaar mun ñu ko violé mu xëy di dox kon lan moo lan moo waral loolu mise en scène boobu yëpp. xam nga tey jii lu ma la ci wax lu dul lañ ma nettali rek. bu ma deewee yàlla dina ma la. parce que yaa ngi woon ci commissaire commissariat ba loo fa ba dinaa fa dem ndax jullit doomu aadama laa. kon maam Abdou su ñëwee fii ne ma ah sama rak bi ma bokkal su nga xam ne sama baay ak baayam ñoo bokk ndey ak baay te ma yor ko ci biir kër gi dañ ko tuumaal ne dafa yegg ci doomu jàmbur man. du duma bu su su jaroon ma fanaan ca commissaire sa dinaa fanaan ndax maa Abdou sama xeet la Modou Touré ci kër maam Abdou ture la dëkk. du Touré ci kër maam Abdou la nekk. ak ñeneen ak ñeneen maam Abdou dafa jaboot. waaw léegi maam Abdou. liggéeyul rek bàyyi ay mbokkam maam Abdou dafa jël ay mbokkam. léegi maam Abdou Touré ay jarbaatam. waaw ak i rakkam yoo xam ne seen ñaari baay ñoo bokk ndey ak mu yor leen ci biir këram di leen dundal ñu koy jàppale ci mbind mi ci liggéey bi muy liggéey. waa léegi maam Abdou Touré. Mhm. ci boppam. Mhm. moo jël Modou Touré muy rakkam. waaw mu koy liggéeyal. waaw léegi ñoom fi ñu mhm. dëkk. ak kër xale bi ñoo taqaloo. taqalawuñu. d'accord parce que tamit nee leen famille bi nee leen ni que kilifa bu ne ñëw na fa pour ñaan njekk mais ñoom dañoo bañ. xam nga man ba ma fa demee dama leen ne ginnaaw da ngeen dëkk. man ba may yóbbul faj jaañ may gu njëkkam ñaareelu maa Abdou bi ma koy yóbbul may gu njëkk bi ma koy yóbbul téeméeri junni bàjjanu xale bi mi ngi toog moom lañ jox xaalis mu nangu ko bokkut ak ñun lañ ko lañ ko ngénte ngénte li bàjjanu xale bi ay ñeeño lañu moom moo jël xaalis moo dem marché moo ndugg moo géré woon togg ñoom ñu nekk ñu xamante lu yàgg ñoom amante kóllëre ñii di dem ci kër kii de añ ñii di dem kër kii ñaari kër yi dañoo proche kër Fatou Diagne ñaareelu maa Abdou maa Abdou lu nekk lay defal ñooñu ñooñu barke laa ilaaha illallaah Muhammadu Rasulullaah teraanga mu ne di koy séq waa kër googu maa Abdou nag nee na xale bi day daanu euh, euh, day daanu rab yaayu xale bi moo njëkk jël xale bi indi ko kër ma Abdou pour maa Abdou seetal ko ma Abdou seetal ko gis ko ne ko sa doom ji bu soobee yàlla mën naa laa fajar rabam yi nga xam ne moo ko jàpp muy jàppale yaayu xale bi wax ji li ci nekk dafa bari xam nga man damaa am doom bu jigéen doon doon doon doon jigéen teg ci ne dama ne commissaire bul xool ne bëgg nga Selbé Ndom bul xool ne Selbé Ndom sa xarit la jox ma kaamil ma tekki sama loxo ci baatu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah bu fekkente ne moo du ture enquête nañu ba xam ne moo ko def nañu ko tëj ndax doomu jàmbur la tooñ. parce que moom jàpp nañ ko waaw bu fekkente ne nag gëstu ngeen enquête ngeen ba xam ne Modou Touré deful dara dañ koo tuumaan bàyyi leen Modou ture mu dem ndax Modou ture yaayam ma ngi koy xaar ak jabaram ak ñeneen ak ñeneen am na ay innocent yu bëri yoo xam ne ñu ngi ci biir kaso bi. nan ngay nekkeek sa doom man loolu laa nanguwul yaay booy sa doom ngay fanaan ak moom ci benn lal mu nekk handicapé nga xam ne du sang boppam chaque jour que Dieu fait yow yaa koy sang góor mën a yegg ci moom ba juróom benn weer ñaareelu fan ba ñu wax ne ne maanaam Moodu dafa yeggaat ci kaw xale bi ñaareelu fan boobu fekk fi Moodu daa fekk sama jëkkëru rakk bi gaañu papay ma sëriñ Baye bas ture nga xam ne moo nekkoon bëkk néegu sëñ Moustapha Bassirou Mbacke ñu doon ko mbiiraas ma Abdou moo jël Modou yóbbaale ko Touba dat ba ñu wax ne ñaareelu yoon ba fekk fi Modou man duma faral kenn yàlla laa gëm yenent bi sëñ Touba mooy sama na ñuy xoolaat suñu bopp man nag la ma wax commissaire maa ngi lancé appel ci doomu aadama yëpp nañ teg seen bët. waaw man de tey sama benn doom bi buñ ko violé woon Yacine. dinaa génne sër ba. dinaa génne la mu soloon. ne leen mi ngi nii waaye duma toog ba mu am juróom benn weer. may doog jiñ doomu jàmbur ndax pen bi dafa metti fukki at ak juróom wala fukki at ñu tëj ko doomu jàmbur joo xam ne deful dara nañ ko seera bu defee nañ ko tëj.